tey euh, dafa nekk loo xamante ni tey Aliou Dembourou député à l'Assemblée nationale euh, éleveur Sénégal yëpp ñoo tasee éleveur séeréer ba éleveur pël ba éleveur njaago ba éleveur bambara ba ñëpp ñoo tasee tey sargal son le excellence monsieur le président Macky Sall xam nga Macky Sall jar na sargal président Macky Sall wax naa ko benn jour dama ko fekk fuut man ko président da nga fekk réewu Sénégal euh, Sénégal da nga fekk Sénégal nekk si arrêt car rapide nga jël Sénégal yóbbu leen si salon si wàllum tey boo xoolee terre bi son excellence monsieur le président Macky Sall il a Touba son excellence président Macky Sall bourse sociale président Macky sal sociale ak le président de si réew mi euh, damay wax chaque jour bu ñu amoon depuis avant euh, président bu mel ni président Macky Sall fekk moo njëkkoon jiitee Sénégal tey de Sénégal nekk na beneen dëkk si àdduna bi kon alhamdulilahi rabbil alamin tey bis bi nekk bis boo xamante ni bis bu rëy la bis boo xamante ni bisu Sénégal la bis boo xamante ni bisu Afrique la bis boo xamante ni defar nit ñii la xam nga tey boo xoolee ñëpp fi tase réew ñëpp fi tase fekkee alpulaar nga bambar nga wax naa ko sànq séeréer nga njaago ñëpp tase pour sargal son excellence monsieur le président Macky Sall.